soo ma doon defal un peu le bilan euh, de l'ancien président de la République Macky Sall ci 12 ans yi mu def fii lan lay doon. yàq réew mi yàq jikko yi toroxal gor yi tëj askan wi sàcc xaalisu réew. ah loolu nga retenir comme bilan. waaw pendant 12 ans. waaw lan nga retenir ci lu baax ci lu mu fi bàyyi. lu baax lu mu fi bàyyi xaw ma ko. honorable 12 ans. ah dama laaj rek. ah sénégalais yi nee nañ defar na tali yi wala kaanu mu rat man lu ma xam laay wax. <laughs> léegi lu bëri loolu mu fi yàq ndax am nga yaakaar ni ñi ñi fi toog dinañ ko defar. waa dana jafe nag parce que jikko yàqu moom fu ñu defee ko dana jafe. mun ñu ko ah. def ci 5 ans jubal jubanti la woote de. mun ñu ko def 5 ans war a am jub jubal jubanti jooyanti. jooyanti ndax nga doole ci jooyanti bi. maa ngi si doole parce que sama programme la nekk. nekk fi askan wi. honorable seen naa la ci fauteuil présidentiel bi ah, man nag candidat laa woon de ak doomu daara nekkal fi askan wi amoon ay point un cinq cinq sama premier point mooy defar nit am réew mënoo ko defar defaroo nit ñi. Mm. defar nit moo tax nga am réew mu jag. Mm. yow nit ñi nekk si plateau yi di saaga askan wi. nekk si mm. réseaux sociaux yi di saaga askan wi loolu nga yaakaar nit ku nit dana ko def. nit magum jëmm di wax ay soxlaam nga nekk di commenter di ko saaga ko wax lu du bon. Mm-hmm. loolu nga yaakaar nit ku nit dana ko bëgg sa réew. loolu il faut ñu defar nit ñi xale si xale lañ koy tàmbalee mu jëm si kaw. ci éducation de base. voilà voilà. kon daal réew mi pour ñu defar ko faw ñu. faaw ñu defar nit ñi ba pare du yomb dañuy defar nit ñi. ba pare defar nit ñi moo pare. Mhm. doo ko defar réew. Mhm. parce que boo mu nit ku baax doo am réew mu jag. dëgg la dëgg la.